ñu ngi bëgg ànd ak yéen ngir tënk xutbatul jumaati ajjumaay tey jile xutba gi mi ngi aju woon ci ahamiyatu salaa wa ahamiyatu iqaamatiha fil di am gi julli am solo ak solo gu mag gi nekk ci julli mbooloo rawatina jullee ko ci jàkk yonentu sallallahu alayhi wa dina wax ci am soloog julli xadis joo xam ne jaabir ibn abdullahi moo ko jëlee ci moom imaam muslim record ko ci saxiixam yonentu ne bayna rajuli wa bayna shirki wal kufri tarku salaati li dox ci diggante nit ki ak bokkaale kéeféer mooy bàyyi julli maanaam daal ku bàyyi julli soo ko yëgee soo ko yëgut ba nga diine boroom xam-xam yi danañ leeral ne ku bàyyi julli ànd ak gëm ne julli lu war la ñu ne kooku mooy gu rëy rëy rëy la def waaye nag jullit la ki ko bàyyi nag gëm ne warut ko gëm ne julli du farata ci moom walla du farata ci diine kooku xéeféer la am na nag gurup ci boroom xam-xam yi ñoom dañoo jël xadiis bi ci zaahiram ne képp koo xam ne bàyyi nga julli rek yéeféer nga ndax yonent bi dafa ne bayna rajuli wa bayna shirki wal kufri tarku salaati julli kon am na solo ba tax ñu war koo def waaye defin wayit lu am solo la yàlla du wax ci alquran mukk julli leen taxawal leen julli rekk lay wax te buy tagg it du tagg ñiy julli ñi daa taxawal julli ñii taxawal julli rekk lay tagg alladina yuqimuuna salaa wa aqimu salaa ndax bépp aji taxawal julli aji julli la waaye duwul ne képp kuy julli rekk taxawal na julli gisuloo yàlla ne fa waylul lil musallin mbugal ñeel na way julli ya alladina hum an salaatihim saahun maanaa jëmm yaay julli de waaye xol ya julliwuñ almusalluuna kathir walmuqimuuna qalil ñuy bari ñu bari ka siggi waaye ñuy julli dëgg-dëgg ñu tuuti lañu yonentu dana wax sallallahu alayhi wa ci xadis joo xam ne abu daawuda ak nasaa yu ñoo ko génnee ne am na ci yéen kuy julli bu jullee ba noppi sulus ba rekk buñ xaajee julli gi ñetti xaaj benn xaaj ba la ci am ni dana julli ba ci bam yeggal rubo ba lay am ñeenteelu xaaj buñ xaajee julli ga ñeenti xaaj benn ba buñ xaajee julli ga juróomi xaaj benn ba buñ xaajee julli gi juróom benn xaaj benn ba wax na ko ba buñ xaajee julli gi fukki xaaj benn ba la cay am mu ne daal kenn ci yéen du am ci julleem lu dul lam xellu mooy lam teewlu moo tax julli am na solo waaye jullihin moo gën a amati solo def ko ca waxtu waaye fexe ba boo koy defit nga teew teew gu mat sëkk kemtalaayeg li nga mën fattaqullaha mastataatum to be present in prayer ndax yonentu sallallahu wax na ne awalu ma yuxaasabu bihi l abdu yowma alqiyamati salaatu jaam bi buy dajeeg boromam yowma alqiyamati li ñuy njëkk a xool mooy téere jëfi julleem yonentu nee na su fekkee ne def na ko nam waree nee regleem dafay yomb su fekkee ne julli ya dafa manqué nee na sama borom wax malaaka yi xool leen sama jaam bi ndax am na dara ci naafila ci julli su fekkee ne daa nga naafila yow jaam bi manquele yéen ñuy julli yéen ñuy déglu yàlla bu ci kenn manquele ci barke yonent bi sallallahu alayhi bu fekkee ki manquele daana naafile sama borom ne jël leen yoolu naafile yi ngeen mottalee ko li manqué ci farata yi looloo tax eh, julli yi ñoo julli balaa ñoo julli farata ak ya ca topp am solo yonentu sallallahu alayhi wa sallam dana wax ne ku jullil yàlla fukki rakkaay fukki rakkaak ñaar ci bés bi bu tabaxal la raxal janna ana luy loolu mooy nga julli ñeenti rakka balaa tisbaar ñaari rakka gannaaw ñaari rakka gannaaw timis ñaari rakka gannaaw gee ak ñaari rakka balaa ngaa julli farataay fajar te moom la wolof yi di wax suba ñaari rakkay fajar yooyu yonentu wax ne moo ko gënal àdduna ak li ci biiram sunna ratiba la sunna yooyu lañuy tuddee sunan ar képp koo xam ne foo ko fekk mi ngi sonnee sunna xamal ne du sàggane farata mukk koo gis muy xoor xooru gàttangal xamal ne du sàggane weeru koor koo xam ne du sàgganee julli naafile balaa tabaarakallaahu balaa moo julli du sàgganee julli yoor yoor du sàgganee julli guddi ak safa ak wittar ak ya ci aju kooku du sàgganee farata waaye koo fekk mu sàgganee farata nag fa huwa li sunnati atiyau sunna taxul ñuy wax moo tax toppatoo sunna yi dafay ñàkk farata yi soo ne damay julli sama farata rek dem ba moytuwul rek nga sàgganee sunna yan ci yàlla boole musal julli juróom yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama nee na mooy lii fóot jàmbi bam set wëcc wëcc wëcc mu joxe misaal ne bu fekkoon ne kenn ci yéen dafa am dex ci buntu këram bés bu ne mu dugg ca juróomi yoon sangu ca ndax dana deseeti ci tilim dara ñu ne déedéet mu ne naka noonu julli juróom julli mbokk yi mooy tax jaam bi am accès ci présence su boroomam subhanahu wa góor ga bakr ibn abdullah bakr ibn abdullah dafa ne yabna adam yabna adam ay yow doomu aadama bi ida chita an tadxula ala mawlaaka bi gayri idnin su fekkee bëgg nga dugg ci sa xadaraay borom te soxlawuloo benn protocole benn permission benn audience buñ lay may wa tukallimahu bila turjumaan bu fekkee bëgg nga wax ak sa borom te doo am kenn ku dox seen diggante di nekk seen interprète ndax dégguloo làkku asamaan soxlawuloo ko soxlawoo tamit ku la jottali ndax asamaan a ngi lay dégg soxlawoo tamit kun dox sa diggante ak sa borom su fekkee ne bëgg nga loolu mu ne lu mën a nekk la tey tey minute bi nga may déglu su la neexee léegi léegi léegi yow jaam bi nga waxtaan ak yàlla te doo làcce mukk permission pour am audience doo soxla kenn it ku la ko wutatu ñu ne ko loolu nu mën a ne mu ne mu ne tusbiru du aka jotalal sam njàpp wa tadxulu mixraabaka duggal ci sa mixraab fa ida anta qad daxalta ala rek yaa ngi ci sa kanam borom dugg nga ci kër sa borom bi gayri idnin fa tukallimahu bi gayri turjuman yàlla ngi lay dégg imaam ahmad daan na wax ne su ma bëggee yàlla wax ak man damay jaaw jël alquran jàng mu su ma bëggee wax ak yàlla nag ma jóg ma ma kabbar julli booy kabbar rek yaa ngi wax ak sa borom tabaraka dara dàqul wax ak yàlla tabaraka wa taala ci xaalatu ridaa il xaqi tabaraka wa nga nga kontaan loo yàlla moo daq téeméeri junne yoon nga kontaan yow boo ko defee non seulement di nga kontaan waaye yaa ngi kontaan sa borom tabaraka wa moo tax góor ga ne buñ ma tànn loo woon diggante julli ñaari ràkk ak demaal aljanna nee na ñaari rakka ma gën a laal janna waaw ñaari rakka moo ma gën a laal janna nee na ndax aljanna maa cay kontaan waaye ñaari rakka yi yàlla cay kontaan te kontaantumaaw yàlla nag moo dàq wa ridwanun min allahi akbaru waaw du benn waaw waaw julli moomu mooy audience bi yàlla di accordé jaam bi bu dee faratay juróomi yoon ci bës bi nga am audience ak malikul mulooki tabaraka wa taala waaw ah, mu jara préparé nag waaw eh, seet yonantu sallallahu alayhi wa ni mu daan duggee ci audience boobu nde Aysatu nee na yonantu sallallahu alayhi wa dafa daan waxtaan ak ñun ñun it ñuy waxtaan ak moom waaw kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuhaddithuna wa nuhaddithuhu ay yonentu ku ku fonkoon famille la waaw bokku la góor ñooñu nga xam ne bu ñu génnee ci mbedd mi di reetaan bu ñu duggisee ci kër gi rekk nekk gaynde foog ne ñoo ca nekk fekk muus yi sax a leen tane waaw yonentu fa daan foog waa këram waaw di course ak ñoom di leen dimbale ci liggéeyu waañ bi di leen waaw lu ne waaw def na ko sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne ku gën ci yéen ki gën ci yéen mooy ki gën ci waa këram te maa gën ci sama waa kër sallallahu alayhi wa sallam na waaye ànd loolu yépp fa ida xadarati salaatu fa ka lam yaarif na wa lam bi azamati llahi azza wa jal bu julli jotee fay mel ni musut ñoo xam ñu nit mosuñ koo xam ndax soxlawoo gi muy soxlawoo màggug yàlla gi tabaraka wa taala su julli jotee rek dafa mel ni beneen muhammad ngay gis alayhi salaatu wassalaam na ma ngeen baal ma ah, maanaa yonantu kenn war a ko sàllalu waaw mhm. ngi jéggalu baax ya rasulallahi alayka loolu nag moo feeñ ci taalibeem yépp saxaabaam yi ak ña topp ci seen ginnaaw xoolal Seydina Ali rakkam ju baax ja bu julli jotaan danga koy gis yeta zël-zël wa yeta lëwwana wajo waaw da koy gis muy lox kanamam di am couleur di rougir di soppeeku waaw waaw bu ñu ko laajee lu xew yaa amiral muminina lu xew mu ne waxtu wi nga xam ne mooy waxtu amaanatu moo ñëw gën amaanatu amaanatu gi yàlla gaaraloon xasamaan yeeg suuf si ak doj yi ñu tiit ragal ko jël ndax responsabilité la responsabilité yi jox yàlla li mu moom muy taklif nga xam ne yàlla gaaral na ko lim bind yépp ñemewuñu man nit ma nangu nee na waxtu joxe loolu moo jot mooy julli boo xoolee doom ja seydna ali ibnul xuseyn doomi xuseynu doomi ali ibnu abi taalib moom lañ daan dàkkantele sajjaat su jot su jaat su jootaakoon bi ndax bari lomoo su jot nee nañu moom bu jàppaan rek ci ngay gis kanam nga commencé jaune ko defe waa këram ne ko maa hada alladi yactarika inda alwudui li laa gaar ci jamono bi nga jàpp lan la mu ne atadruuna bayna yaday man uridu an aqum ndax xam ngeen ki ma war a taxaw ci kanamam kana subhanahu wa taala al imam said attanuuxi rahmatullahi alayhi wax nañ ne doo ko gis muy julli lu dul ne rongañ yi dañuy fees lex yi ak sikkim ba mbokk yi nañuy jàng loolu di jooy jooylu buñ ko mënut sax nañ jooy jooylu waaw tashabbahu in lam takunu mithlahum inna bi rijali falaahu waaw di jooy jooylu ci julli dana jur ñu dem ba jooy gi di nekk di dëgg ci ñun waaw waaw waaw ndax boo boo soxlawoo loolu dana tax nga teew dana tax nga teew waaw Eh, tax nga teew te ibnu abbas ne na ñaari rakka yoo teew yu yem nga teewlu ca waaw di xalam sa borom tabaraka wa taala di xalam eh, kéemaani borom bi tabaraka wa taala nga am présence ci julli ga nee na moo gën nga fanaane julli te sa xol nekku fa waaw rakaataani muqtasidataani fii tafakkurin xayrun min qiyaami laylatin wal qalbu saahin waaw ñu ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na jamono ngi ñëw daa gis nit ñi di daje ci jàkk xam nga yonentu lu war a xew rek wax na ko saxaaba yi ne danañ toog rek picc romb ñu xam la ca yonentu bi wax la mu la ci picc picc yi di romb lan lañ ciy jàngee ndax yonentu waxoon na ko sallallahu alayhi wa ku fàttaliku fàttaliku na waaye li ko dalee ci jamono moom yonentu ba bi nit ñi di leemee tàppi yowmal qiyaamati yi di dugg aljanna yàlla nañ ci bokk ak ñeneen di dugg safara yàlla buñ ci bokk saxaaba yi nee na yonentu wax na leen li ciy xew lépp nag ku ko fàttaliku fàttaliku na ku ko fàttalikuwul fàttaliku lëf ci yiy xew mooy dinañ toll jamono bu nga xam ne daa fekk nit ñi ci jàkka ji ñu géew seeni géew fekk duñu waxtaane lu dul àdduna seen xol newu ca lu dul bëgg àdduna yonentu ne hey bu leen toogaaleeg ñooñu yàlla amul ci ñoom soxla laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah waaw moo tax lu mët a bàyyi xel la ndaje moo dem fexeel ndajee ma yàlla aw fexeel ma ndajee ma saf yàlla waaye fexeel ndajee ma di ndajem yàlla même bu doon ndajem àdduna la waaw ndax yàlla loo ko tuddeewul rek moom reer boo ko woowul mu def ci suuf tabaraka wa boo defee boo boo xamee ci kanam kan nga taxaw doo yàkkamtee julli gi waaw léeg-léeg nga gis kuy julli doo xam sax ndax dafay julli wala dafa cob waaw waaw waaw doo xam ndax dafay julli wala ganaar guy cobal doomam yi pepp la waaw loolu yonentu mi ngi ko tuddee sàcc waaw te nee eh, sàcc eh, bu dee crime la te crime la nee ba ca degré ba ca gën a rëy ci criminalité wu sàcc nee na mooy bi aji julli ji di def sàcc ci julli mooy the biggest crime of theft according to sayyidina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko yonantu nan la nit di sàccee ci julli mu ne mooy koo xam ne buy julli rukkoo ya du mët su ya du mët te moo ne de jàmbe amul ci jullim la dul la mu teewlu waaw gis nga bu nit ki di julli di yàkkamti ba tax muy gàttal rukoo yeeg su jóot yeeg ya ca aju su ko dégg su ko déggul sama borom dana wax ak moom ne ko fan nga jëm yow sama jaam bi ana lu tax nga yàkkamti fan nga jëm yow sama jaam bi ana lu tax nga yàkkamti ilaa ayna yaa abdi fan nga jëm ilaa man huwa afdalu minni ndax dangay wuti koo xam ne walla seeti koo xam ne moo ma ëpp moo ma gën maanaam looy wuti rekk yaa ngi taxaw ci kanam kim nekk ci loxoom looy yàkkamti ah. boo defee nga takk sa xol ba xushuuc nekk ca te bu nee ci xol bi rek feeñ ci jëf yi waaw boo defee jëf yaru nga xool fi nga sujjóot waaw yooyu dina la dimbale la dimbale dina la dimbale yàlla lu ñu yàlla boole dimbale waaw eh, eh, buñ lay nettali ñi jiitu woon seen doxalin ak seen présence doo ko mën gëm ko waaw oo ko mën nga mukk wax nañ ne xalaf ibn ayub xalaf ibn ayub e, dafay julli zambuur matt ko ba deret ji yool ba nit yi di wut ndox di ko raxasal yéreem ndax deret ju bari ji nekk ci yére bi ak di ko fompal fi deret ji di yool waaye moom yëgu ko yow mu pare ibnu saïd wax ko ko ne ko kon li xew yëpp ñu lay fompal di la raxasal yëguloo ko mu ne ay yashcuru bi mithli hada man yakunu waaqifan bayna yaday maliki bayna yaday lmaliki ljabbaari mu ne ndax ku taxaw ci kanam buur bu tol ni yàlla dinga nga yëg lu mel ni ku taxaw ci kanam buur bu mag ni yàlla wa malakul mawti ala qavah malakul mawti nekk ci sa ndong atuma tout mën na jël sa ruux wannu wannaaru ala chimali safara nekk ci càmm càmmoñu ki taxaw ci kanam boromam erreur bu mu def musiba bu mu def mën ko fa tàbbal ñàkk gu mu ñàkk a julli gi mën ko tabal ci safara wa siraatu taxta qadamay siraat nekk ci suufu ndëgoom mu war caa jaar jàll dem aljana wala mu safara wal iyaadu billahi ndax ku nekk ci situation bi dina xalaat dina yëg dina yëg eh, lu ko mat nday jaar nay jiit ñu ne ñu ne eh, góor ga amr ba loxo ba yàqoo te fekk euh, insectes yi la ñoo ko infecte ba yëf yi dem ba toll foo xam ne dañu war a dagg loxo bi docteur yi ne ko ah, fokk ñu yeew la parce que booba garab yi li nga xam ne dañ la koy nàndal doo yëg mettit amut mu ne déedéet bàyyi leen ba may julli ngeen dagg ko waaw dagg nañu loxo bi ba defar ko ci biir julli gi bi mu sëlmalee la soog a yëg na dagg nañ loxo bi ki toll foofu yonentu sallallahu alayhi wa sallam ki am xudur ci julleem euh, euh, euh, te ba naka la tuddati ku julli ñaari rakaa sa xol yépp nga jox ko yàlla nee na daa génn ci sa bàkkaar comme bés bi la sa yaay jure waaw ah, comme imam Ghazali tudd na ko ci mukaasha wax na it ne amul benn jaam buy jàpp rafetal njàpp la julli ñaari ràkk xolam ak jëmmam yépp mu jox ko yàlla lu dul ne aljanna ñeel na ko xadis jàng muslim yooyu nag mbokk yi ci taxawal julli la bokk waaye dafa am boo xam ne ñu bari ci ñun dañ koy sàgganee ci taxawal julli mooy defee ko ci mbooloo te defee ko ci jàkk ñu bari ci ñun daanaka àjjuma ak àjjuma la ñuy dem jàkk wala très rarement te jàkk mooy néegu yàlla mooy kër yàlla te dafa soxla ñu ko dëkkee te nee na ñi ma gëm rek ñooy dëkkee jàkk innama yaamuru masajid allahi man amana billah kër yàlla dafa soxla ñu ko dëkkee ndax kër bu ko kenn dëkkeewul ci ràpp la jëm waaw te bu la yàlla gënalee sa bopp waruloon nangu kër yàlla ràpp sa kër ya xees yow yonentu sallallahu alayhi wa nee na bu ngeen gisee waay mu baaxoo jàkka ne bu ngeen di wut jullit jàpp leen ida raaytumul masjid ida raaytumul mar'a yataadul masjida fashhadu lahu bil iman ku ngeen gis mu baaxoo dem jàkk nee na ngeen ko seedeel ngëm yàlla te ngëm yàlla nag ah mooy condition ci jëf ju ñuy def ñu nangu ko mhm. man amila salihan min dakarin aw untha wa huwa mumin waaw wa huwa mumin mooy condition ba kooku de fa la nuxiyannahu xayatan na waaw wala najziyannahum bi axsani ma kaanu yamaluun yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax na ci jeneen xadis ne bashiril mashaaina fi zulami ila al masajidi bi nuuri tammi yowma alqiyamati ñi nga xam ne guddi ak lëndëm du leen tere dem jàkka nee na na leen bégalee leer gu mat sëkk yowmal qiyamati te mbokk yi ñu bari ci ñun am nañu jumtuwaay yuñ mën a demee jàkk ba duñ euh, jaar ci lëndëm bi yonent ci jamonoom saxaaba yi dañ daan doxee barab yu bëri sori am na ci ñoo xam ne sa duñ gis seen yet lañuy góor góorloo ba yegg si ci jàkk ji ànd ak euh, jafe-jafe yooyu yëpp ñun nag tey am na ñuy oto am nañu am nañu am nañu tabaarakallahu te yowmal qiyaamati nag a ah, fa la leer di amee njëriñ waaw waaw at mim la naa nuura na yowmal qiyaamati la waaw defee képp koo xam ne Euh, ngëmam demeewuloon noonu boo moytuwut la muy am ci leer du ko mën a leeral waaw ah. yonentu wax na ko am na koo xam ne leeram dafay mel ni polu baaraam rek koo xam ne leeram dafay toll ni taxawaayu nit am na koo xam ne leeram dafa toll ni montagne yi am na koo xam ne na ñoo xam ne du ñu am dara ci leer waaw ah. am na ñoo xam ne dañuy gis leer buñ demee ba buñ demee ba bëgg a dox leer ga dem loolay naafeq yi ba defee ne ñuy woo julli di naan leen alam nakum maakum xanaa du noog yéen doon ànd di jullee ko woor xalu bala walakin fatantum anfusakum waaw waaw waaye da ngeen a da seen bopp waaw fatantum anfusakum yéen a fitnaal seen bopp li ngeen doon wax du dëgg ci yéen da ngeen àndoon nag ñun ci biti rek fekk amoon ngeen yeneen i but ak yeneen i waaw waaw yeneen i objectif yal nañ ci yàlla boole musa yal nañ yàlla may ngëm gu mët sëkk ci àdduna may ñu leer gu mët sëkk ca àllaaxira te nag dem jàkk def ciy dimbale jaam ni ko yonentu bi solo alayhi wa sallam waxe nee na képp koo xam ne dana xëy dem jàkka gontu dem jàkka na xam ne saa yu xëyee wala mu gontu dem jàkka yàlla préparel na ko ngan yowmal xiyaamati ngan laa wax de waaw yàlla mu la préparel ngan aljanna aljanna lu muy neex-neex bu ca yàlla bokkut neexut waaye yàlla mu ne tey nag diw sàngam moom laa invité moom lay defal nuzul waaw man ghadaa ilal masjidi aw raaxa aadda allahu lahu nuzulan fil jannati kullama ghadaa aw raaxa loolu mooy ku taxoo jàkk xamal ni bés bu nekk waaw am nga droit ci nganu yàlla tabaraka wa yàlla invité la ndeysaan seetal loolu seet li nga gën a bëgg mu defal la ko <laughs> wata feeba yan nanga ci yàlla boole defal barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ah, jàkka dafa rëy rëy ba yonentu sallallahu alayhi wax na ne gis nga yowmal xiyaamati ni jant bi di jege ba nit yi seen yuur yi di baax ndax tàngaay di ñaq ba ñaq wi nekk géej ci ñoom nee am na ñu nga xam ne duñ ko yëkk kenn ci ñooñu kët mooy koo xam ne xolam dafa attaché wu ci jàkka ji waaw wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajidi koo xam ne fu mu toll xolam a ngi ca jàkka ja su jullee yàkkamte ne julli jotaat bam mu dellu ci jàkka ja business du ko téye fii buyutin adina allahu an turfaa wa yuzkara fiha smuhu yusabbihu lahu fiha bilguduwi wala saali rijal rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an dikrillah yàlla nee na maa ngi gis ay góor ci marché bi business neexeewut ko marché neexeewut ko ba waxtu julli jot te duñ ko fa bàyyi dem julli ci seetal loolu waxul dem julli ji de duñ ko fa bàyyi dem julli ji ca jàkka ja waaw waaw fii buyutin adina allahu an turfaa fii buyutin adina allahu an turfaa wa yudkara fiha smuhu yusabbihu lahu fiha bilguduwi wala saali rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an dikrillahi wa iqaami salaati wa itaai zakati yaxaafuuna yowman tataqallabu fihi alqulubu wala busaar waaw li ci seen kanam lañu bàyyi xel moo tax waaw ibnu mas'ud daan na wax ni képp koo xam ne bëgg nga dajeek yàlla ëllëg fekk yaa ngi di ab jullit ne na nga fonk julli juróom saa yuñ ko xootee maanaam wuyu ji ko mu ne yàlla <clears throat> dafa yoonalal yonentu bi sallallahu alayhi wa ay yooni njub te julli juróom yii dafa bokk ci yooni njub yooye bu ñu wootee julli juróom yi ngeen wuyu ji ca jàkk ya dafa bokk ci yoonu njub yële yooyule mu ne gis nga su ngeen julli woon ci seen néeg yi ni nga xamee ne almutaxallif kii wuute jàkka noonu la jullee ci néegam ngeen sàggane te ngeen bàyyi seen sunnay yonant man sarrahu an yalqa allaha gadan musliman fal yuxaafid ala hadihi salawaati alxams xiina yunaada bihinna fa inna alhuda wa innahunna min sunani alhuda walaw sallaytum fi buyutikum kama yusalli almutaxallifu fi baytihi la taraktum sunnata nabiyikum su ngeen jullee ci seen néeg yi ni ko ñiy wuutee jàkka maanaam ñiy absente duñ dem jàkka di ko defee kon ngeen bàyyi sunnaay seen yonant walaw taraktum sunnata nabiyikum te bu ngeen bàyyee seen sunnaay yonontu la dalaltum ngeen réer mu ne walaqad raaytunaa wa maa yataxallafu anha ay an salaati fi lmasjidi illa munaafiqun mu ne ñun dee jàpp nañ ñun saxaaba yi yonentu sallallahu alayhi ne amul kenn kuy wuutee jàkka ba du fa julli farata julli farata amul kenn ku koy wuutee julli ca jàkka ja maanaa ñu nodd ca jàkka ja ñu dem julli ji kenn du bañ a ñëw lu dul ab naafiq mu ne ab naafiq maalumu nifaaq koo xam ne naafiqam lu wóor la rek mooy toog ñu woote jàkk ja mu toog këram mu ne wa innahu la yati bir rajuli wa innahu la yuta waaw la yuta bir rajuli yuhaada bayna arrajulayni xatta fi saf ne daa nga gis ci saxaaba yonantu sallallahu alayhi wa sallama ku feebar ba du mën a indi boppam walla mu màgget ba du mën a indi boppam nga gis ko mu teg ñaari loxoom yi ci ñaari mbagg waay kii di ko dimbale ci wàll gi kii di ko dimbale ci wàll gële ñu di ko watat walla ñu di ko indi di ko dimbale ba mu yegg si ci jàkk ji taxaw ci sàppe si ndax xër xam nga kooku am na ngànt mu ne waaye ñoom dañoo gisoon ne julli ci mbooloo mooy wane ne borom jullit piir la bàyyee julli ci mbooloo toog yow kot mooy wane ne boroom leneen la looloo tax saxaaba yi ak ñañu jàngal fonkoon julli mbooloo benn mag ci mag ñu baax ñi wax na ne ñeent fukki at passé ci sama dund ñeent fukki at yi passé ci sama dund nodd ma fekk ci biti jàkk ci mooy mosuma toog bañ nodd lu dul ne balaa ñoo nodd maanaam musuma toog bañ noddu may soog a dem jàkk saa yu ñuy nodd rek fekk maa ngi ci biir jàkk ci xadis ja nee na man salla lillahi arbaina yowman fi jamaatin yudriku takbirata al ula kutiba lahu baraatan baraatum min annaari wa baraatum min annifaq gis ngeen mbokk yi julli ci mbooloo ma amee solo koo xam ne ñeent fukki fan yu toftaloo yaa ngi koy jullee ci jàkka ja ci mbooloo ma te takbiratul ihram bi du la raw nee na doomatal ñeent fukki fan yi lu dul ñu bindal la ñaari ñaari sertifika euh, ñaari diplôme ñaari këyit yoo xam ne li muy wane bii liñ ciy bind mooy diw sàng mii turam dëñ na ci safara safara du ko lakk mukk ñaareel ba diw sàngam mii ku set la ci naafeq amul dara ci nifaq waaye defee nga xam ne ñeent fukki guddi ñeent fukki fan ku ko tàggatu ci dara miin nga waaw miin nga miin nga nag miin nga moo tax sëlëf bu leen takbiratul ihram rawee dañ leen daan jaale waaw dañuy mel ni ku ñàkk kiñ gën a bëgg ci àdduna dañ leen di jaale ndax kabar bu njëkk raw na leen waaw waaw waaw julli mbooloo ci jàkk yi yépp nag li muy diis diis ci ab naafeq yonentu sallallahu alayhi wa sallam bi ci gën a diis ci naafeq yi mooy gée ba ca topp mooy fajar mu ne moo ne de suñ xamoon li ci jullee gée ak fajar ci jàkka ja danañ dikk kël geyeeg fajar ci jàkka ja donte sax dañuy raxam walaw yaalamuuna ma fihima la atawhuma walaw xabwan yonentu sallallahu alayhi wa sallam mu ne doon naa xalaat sax digal kenn mu jiite mbooloo mi ci jàkka ji ma génn ànd ak ay waay yu ma dimbale ñu defal ma ay mat ci kër ñi nga xam ne duñ julli si ma taal leen benn yoon lakk leen ndax ñooñ looloo gën ci ñoom xadis jàng ci Buxaari yoog Muslim yonentu li mu bëree waaye nee na ñi dul julli si loolu daal rekk jaadu ci ñoom loolu xadis bu raglu la ci e, ñun ñëpp mbokk yi ñu bàyyi ci xel ba di e, góorgóorlu luñ mën di dem ci jàkka yàlla yi di fa jooxe julli góor ak jigéen nag waaw ndax léeg-léeg ñu ne la jigéen góor julli ci biir këram moo gën waawoo waaye nag jamono fi mu toll jamono fi mu toll miinal sa bopp jàkk dafa dafa am solo te yonent bi kët moo ne jéebéeru yàlla yi bu leen leen tere jàkk yàlla yi waaw jaamu yàlla yi jigéen yi bu leen leen jàkk yàlla daan ragal jigéen di dem jàkk sécurité moo taxoon ak fitna te tey jàkk joo dem am na séparation fu jigéen ñuy jullee ak fu góor ñi di jullee waaw te loolu jàkk yonent bi amut ko woon waaw jigéen ñi góor ñi daan ne ci kanam jigéen ñi ne ci ginnaaw terewul mu ne bu leen leen tere jàkk yi kon nag ngàntaamut rawatina nag góor ñi tabaarakallaahu <clears throat> ndax dem jàkka jullee fa julli juróom am na borom xam-xam yu ko def waajib sax jàngoon nañ waajib maanaam man ak yéen waaw am na borom xam-xam yoo xam ne farata lañ ko def waaw donte tabarkal la waaw am na solo e, fi ñu tëjee xutba ji moo doon xadiisu Seydina Abu Hurayra mu nettali jëlee ci yonantu sallallahu alayhi wa muy compare jullik kenn ak jullik mbooloo ci jàkk ci dafa wax ne salaatu rajuli fi jamaatin taziidu ala salaatihi fi suuqihi wa baytihi bid'an wa ishrina darajatan jullik waay ci mbooloo ëpp na ñaar fukki darajaak nangam ëppee na ko julli gu di julli ca marché ba wala ca këram am na xadis bu mu tuddee ñaar fukk ak juróom ci daraja am na xadis bu mu tuddee ñaar fukk ak juróom ñaar waaye fii ñaar fukk ak nangam la wax mu ne lu waral loolu wa dalika anna axadahum ida tawaddaa fa axsana alwudu mu ne bu kenn ci jullit yi jàppee njàpp lu rafet humma atal masjida topp mu dem jàkka ja mu dikk ci jàkka ja laa yanhasuhu illa salaa dara yëgatihut ko lu dul julli laa yuridu illa salaa bëggut dara maanaam dara taxut mu jog illa salaa lu dul julli mu ne waa jooju lam yaxtu xutwatan illa rufia lahu biha daraja amul benn jéego gu muy seq lu dul ñu yëgatil ko ca daraja wa xutta anhu biha xatia amul jéego benn bu muy seq lu dul ñu sippil ko ca bàkkaar xatta yadxula masjida ba ba muy dugg jàkka ja fa ida daxala masjida su tàbbee ca jàkka ja kaana fi salaa nekk na ci julli maa kaanati salaatu hiya taxbisuhu féeg ma nga ca jàkka ja di xaar julli jot mu julli ñëw nga ci jàkka ji midi te une heure lañ war a julli tisbaar wala une heure demi temps bi nga fa def di xaar julli yëpp yaa ngi ci julli mu ne wal malaikatu yusalluuna ala ahadikum maadaama fi majlisihi malaaka yi dañuy julli ci kenn ci yéen feek mu ngi ci barabam alladi salla barab bi nga jullee tànk yaa nga fa ci jàkka ji barab ba nga jullee tànk yaa nga fa malaaka yaa ngi lay ñaanal naan allahumma arhamhu yàlla yal na nga yërëm jaam bi allahumma agfir lahu yàlla yal na baal allahumma tub alayhi yàlla yal na nga tuub maa lam yudi waaleykum salaam maa lam yudi fiihi feeg loru ca maa lam yuxdis fiihi feeg xewalul dara lu dàquwanteeg jàkk ja ca jàkk ja xadis ji xadis juñ dëppoo la wa hada lafdu muslimin lii mooy version imam muslim tabarakallahu yegsi nañ fu ñuy yëgatee jotaay bi ñu ngi gërëm suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp yëpp <laughs> tey nag dañuy ah, jagleel nuyoo suñu lëkkale aja Ayda Ayda Njaay ca Houston ak xaritam Cherif Mouhamadou Lamine Cherif Mouhamadou Lamine Haydara suñu soppe suñu xarit e, tabarakallahu ak ah, suñu ah, mbokk yi nga xam ne ñu ngi déglu yëpp fi mashariqil ardi wa magharibiha ñu ñaan yàlla lépp lu ci jub mu nangu ko lépp lu ci dëng mu eh, soppil ñu ko defal ñu ko njub te taxawuñu ci zaahir taxawuñu ci baatin di nuyu tamit suñu nejaay góor gi Tamsir Dramé ak eh, sëriñ Abdou Fall Dammel sëriñ Abdou Fall Dammel ak sama jigéen Adja Ndey Fatou Diop moom xam nga Cheikh Tidiane moo ñu boole radiyallahu anhu ak soxna Saafura soxna Saafura Taal Makki di suñu jigéen